ci ci troisième mandat bi mooy juridiquement mun na def troisième mandat il laa déclaré mais li ma koy xamal mooy d'abord droit dañ koy interpréter xam nga suñu defee loi nga dem tribunal ñu ne la jëlal avocat dina la mun a layal ba loi boobu ñu ñu ñu la wax ba loi boobu ñu waroonoon ci tëj avocat ñoo layal la ci layal la ci ba nga rëcc ci loolu mooy suñu loi yi c'est pas des lois canoniques c'est pas des lois divines constitution bi tamit noonu la mel mais xam nga moom ci boppam mais moo njëkk dugal boppam troisième mandat président la république moo ko njëkk a bañ moo toog fu nekk defe naa révisité nga li ce qu'il a dit aussi soo ma gëstoo war nga ko gëstu moom ci boppam. li mu wax man j'ai pas besoin de gëstu ko c'est dans les têtes. c'est dans les textes <laughs> alors su fekkee moom dem na ba yëkkati làmmiñam wax tous les wax ko ci biir Sénégal ak. ci biti Sénégal ne du def troisième mandat président de la république maa ngi lay ñaan nga daaneel waxul troisième mandat bi xaw ma lan moo la ci dugal parce que su fekkee liggéey nee nga liggéey nga liggéey boobu dinañ ci ñëw tamit parce que forme bi nga liggéeyee soo ko xoolee li nga jël ci xaalis ci deux mille dix neuf à partir de deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt un la nga lekk ci xaalis ci. trois années yooyu pour justifier ay réalisation yoo xam ne da nga ko bugg def sénégalais yi ne la jàmbaar nga di la tàccu ne la kii liggéeykat la daane la loolu. ça va pas mais mais ñu revenir ci mandat bi dinañ ñëw ci ci ci contestation wu bilan bi xam nga lui il dit que c'est pas un problème juridique. Hmm. Euh, tey dama tombe euh, sur une intervention euh, de de du professeur Zouanke qui était l'invité du grand jury. de, du jeudi du dimanche de Mamoudou Ibra Et lui, il semble confirmer que troisième mandat bi nekkul un débat juridique. Il dit ceci, il, il, il émet trois hypothèses. Il dit que Conseil constitutionnel jàppul ne le mandat de 2012-2019 dañ koy comptabiliser. Maintenant li mën a nekk mooy président mu interroger Conseil constitutionnel laaj leen conseil constitutionnel bu ne mandat bi ci la bokk il en a fini c'est irrévocable conseil constitutionnel bu ne mandat 2012 2019 bi bokk si il en fini mu ne beneen hypothèse mën nañu jaar ci assemblée nationale pour leeral bindinu article 27 nouveau bi donc est-ce que Macky Sall loo sukkandiwul ci ay xeltukat pour dire que la question du troisième mandat c'est pas un débat juridique mais c'est une question de morale et ñu bari ci foofu foofu lañ moo tax foofu laa tàmbalee euh, soo ma déglu woon bu baax di nga xam ne li nga wax ni man dépassé naa ko dama ne légalité wu mandat bi ou no question d'interprétation la ku nekk yow yaay boor boo féete Ablaye amoon na fii au temps de Ablaye Wade c'est-à-dire nos présidents ont l'habitude de nous replonger dans l'histoire moi dafa mel ni fi mu nekk ay gént laay def c'est-à-dire li débat yi ñu doon def ci Abdoulaye Wade. c'est la même chose. c'est exactement la même chose. moi j'ai quitté les États-Unis les jeudis pour rentrer le le le lundi simplement pour combattre le le troisième mandat de Abdoulaye Wade mais loolu dañu commencé répéter ku wax ñu tëj la ku wax ñu interpréter la diffamation et puis des des des arrestations à ne à à ne pas finir. loolu au Sénégal dafa xew loolu moo xewoon ci jamono Abdoulaye Wade pourquoi nag léegi le président Macky Sall mënul am hauteur quand même hauteur Abdoulaye Wade même chose la woon bi muy wax ne day def troisième mandat trois quarts yeeg yooyu lan la ñu doon dañu doon dëkk bi dina takk nangam dinañ ko xeex et cetera xeex nañ ko lu ñu mun def nañ ko ci ay ay ay bakkan rod na ci mais bakkan yooyu sax au moins seen mémoire président waroon na xool ci bakkan yooyu fii la ko fekkoon dem na jaale ji ñëpp. les quatorze morts la dem na kër bu nekk jaale fa wàcc fa xaalis. c'était onze morts. onze morts onze morts yooyu yëpp au moins seen mémoire moom mi demoon combat boobu war na respecter mémoire yu sénégalais yooyu ñuy sénégalais comme ñun xeex ci ay combat pour troisième mandat ba daanu ah ay héros la ñu doon ci Sénégal yow nga dellu si waat mu bugg a répéter ce que Abdoulaye Wade nous avait poussé à faire muy xeex ba ay bakkan di ci rot. pour ay troisième mandat lu ko jar président Macky Sall su fekkee par exemple lan la nguuru il en a douze ans douze années def na ko fi donc interprétation wu ay légalité ay juridique ak yooyu ku mu neex ku mu neex interpréter noo mun ta def mais moom ci boppam moo njëkk a interpréter deux mille 2018 2019 bi muy taxaw di wax sénégalais yi amuleen droit am aw dootuma fi def troisième mandat boobu constitution baa ngi fi woon ñu def référendum boole ko ci ah tout était là donc lan moo ko war a tourner entre 2017 et deux mu am xelu ne war na mun a def troisième mandat bay wax nii wii nii non mais c'est une honte dans une république di wax am république bu am constitution dafa mel ni rek nga nga jël kaamil alxuraan ah nit sàcc ñu ne dañuy dagg loxoom nga ne noonu nañ ko utal avocat bu la ko layal ba loxoom du dagg mais constitution noonu la war a mel ci réew États-Unis seen constitution deux cent années deux cent dix douze années ci ren mu suñu ci génne virgule kenn du fa def troisième mandat amul mais pourquoi ñun pourtant suñu euh, président yi di xeex affaire troisième mandat moom mi nga xam ne déjà nekkoon na fi président OUA représenter l'Afrique partout nga xam ne fu mu dem les bailleurs li ñu koy wax parce que attention il est suivi actuellement waa États-Unis ko teg bët te waa États-Unis d'accord ñu ci troisième mandat waa France mii dégg naa dégg naa moom sax ak Macron jàllatuñu ndax affaire du troisième mandat donc tout le monde luy demande bàyyi troisième mandat bi lan la koy jëriñ troisième mandat douze ans nga def ko ci réew may ma douze ans nga def ko ci réew am nga autant d'années autant de temps pour montrer aux Sénégalais que yow baax nga ci Sénégal wala bon nga ci Sénégal donc fégal na waaye ngari lay yàlla na fi wàcc Sénégal ay ñu ko gën a xareñ dax ko liggéey gën koo bugg Sénégal ñi ngi fi ñu continuer